madame Faye Jacqueline Badiane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. Mm-hmm. jërëjëf maa ngi leen bu baax a baax. ñuy fàttali suñu auditeurs yi ne euh, moom mooy secretaire commune bu achelem tey ñu gis ne yéen a ngi amal ay ay ay projet yu yu bëri bokk na ci mm-hmm. euh, jële euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy tablier yi ci occupation anarchique bi ak it yeneen yi nga xam ne sumb ngeen ko tey gis nañ ne coow da ciy topp à chaque fois ñu bëggoon xam. Euh, lan la exactement fu ngeen toll ci seen i projet yooyu. waaw c'est vrai que euh, marché la moom ñaari projet la benn projet bi mooy fi ñu def suñu ay pavé foofu c'est la voie publique. Mm-hmm. donc c'est un parking qui est réservé euh, ñi nga xam ne ñooy ñëw marché HLM bu ñëwee ñu mën a gaare seen oto dugg ci marché bi dugg def seen i achat ñëwaat jël seen oto dem fay donc c'est un parking réservé foofu la tablier yi ñëwoon occupé biñ ko occupé donc ñu war leen fa dindi mu indi problème. Mhm. parce que xam nga li ko indi. avec les autoponts la Oui. comme ah, am tablier yi nekkoon Dakar yëpp dañu dañu converger vers HLM. nga dem Liberté 6 dafa nekkoon ñëpp ñëw HLM. donc il fallait les enlever parce que c'est réservé aux véhicules loolu moo indi woon coow bi mais coow bi quand même léegi c'est réglé ba ku nekk léegi xam nga sa bopp. beneen projet bi nag. Mhm. boobu projet de démolition la et de reconstruction. parce que marché HLM dañu am benn euh, euh, marché boo xam ni donc ça fait quatre cent soixante neuf cantines mu tudd marché HLM cinq extension. Mhm. ñu koy wax marché bii. léegi nag marché boobu nag moo demoon nag ba yàqu parce que première chose bi ñu defoon en 2011 la kooku dañu gis marché bi commencé di yàqu. Mhm. ñu jël donc un expert immobilier ñu wax ma Mbacké mu mu évaluer ñu xool bâtiment bi parce que c'est un bâtiment qui reçoit du public bi mu defee évaluation bi donc mu nekk situation bu doy waar ci lu évaluation bi sax la commission donc auxiliaire de la protection civile mhm. basé wu ñëw def benn visite au niveau du marché pour jël les décisions qu'il faut parce que marché boo xam ne buñ ne ay fissure la ci béton bi béton bu am fissure mhm. donc kooku ça pose problème bu ñu waxee ñu ne ko ñu ne que euh, amatul échanti euh, étanchéité donc euh, pente yi nga xam ne les pentes imparfaites les apparaître des armatures mm -hmm. dans un état d'oxydation avancée ah boo demee ba fer bi nekk ci kii bi oxydé ci loo xam ne ci reçoit du public dem dañ nekk rajo mais bu ma la génneloon les photos nga gis ko donc bi yooyu amee commission euh, auxiliaire ci euh, protection civile mhm. daa di jóg ñëw nag ànd ak préfet de Dakar ñu def visite avec la mairie de Dakar bi ñu defee visite ce qui ressort de ces visites mooy lan il faut évacuer le marché il faut démolir le marché boo évacuer nga démolir ba pare da ngay reconstruire comme dañu waroon reconstruire ñu ne kon 469 cantines la léegi nañ ko def cinq modules parce que génnendoo ñëpp ci biti kooku aussi ñun ay jullit lañu. Mhm. il faut ñu am stratégie boo xam ne xëy na par lot par lot la par lot premier lot bi génn ñu reconstruire ko duggaat nañu. Mhm. deuxième module bi ñu génn leen ñu reconstruire ko dugal nañu mais problème bi mi ngi am ci troisième lot bi. luy problème bi lu xew. li xew mooy. Euh, ñii dañ ne duñu euh, ay locataire ak ay propriétaire mhm. propriétaires yi ñoom ñoo seen kii mais propriétaire boo xam ne xëy na maara dem si jóge nga fi sa famille xamul newu xamul woon na am nga cantine donc wala nekkatoo fi voyager nga cantine yi nekk fi ñooñu amuñ xam nga amuñu document mhm. euh, locataire yi léegi nag foofu la problème yi nekkoon ñuy jéem a def ñi naan dañuy génn ñi naan duñu génn parce que boo génnee këyit moo lay dugalaat ci yooyu lañ nekkoon ci lañ nekkoon affaire bi di tiire di tirer di tirer ba ñu toll foo xam ne marché bi nag mel na nekk éponge mel na ne éponge ñu ne léegi nag lii moom mënatul mënatul dem. Mhm. parce que c' est un problème quand même euh, public. ci lañ ko jël nag ñu daal di jël ci la maire jël décision avec euh, li ñuy wax le euh, autorités étatiques ñu jël ko ne léegi nag nañ ko démolir démb nag lañ commencé démolition bi. Mhm. waaw donc force de l'ordre ma nga fa. Euh, le gros matériel est là-bas. Mm -hmm. Les manœuvres sont là-bas. Je crois que d'ici le week-end, tout le marché sera Euh, rasés. Les trois modules qu'on doit reconstruire seront rasés et on va passer à la reconstruction. D'autant mmh. plus qu'on a le planning qui a été donc euh, remis par euh, le promoteur. d'accord mu mel ni toj la ak defaraat. ngeen am fu am rëkk-rëkk muy jotu leen ndax am na ci ci recensement bi ay ñi loué ak ñi nga xam ne ñoo ko moom. ndax am na li nga xam ne tey ndàmp ngeen leen ko ci wàllum koppar. waa xam nga ndàmpaay mooy ki nga xam ne du ñëwaat mais ki nga xam ne danga nga ni génnal nga toog fee ma tabaxal la nga ñëw duggaat hmm. loolu moo am. tey jii tabaxaat bi ndax dafa am ñoom lu ñuy yokk li nga xam ne oh. moo leen di firndeel wala moo leen di garantir ne lañ fa lañ leen lañ leen fa tasal moom buñ ñëwaatee fekk mu taxaw ñoo koy moomaat. effectivement parce que xam nga commerçant mënta moom cantine pas de porte lay moom. sa part de porte ngay moom parce que ça appartient à la collectivité mm-hmm. léegi nag seen part de porte boobu on a ouvert un compte boo xam ne ñoom ci lañ koy verse bu promoteur bi pare bu fekkee ni yow versé nga li nga waroon versé ñu jox la say clé bu fekkee ni desoon na nga complété ko ñu jox la sa clé nga duggaat sa cantine donc loolu waaw loolu lañ arrêté et ñu wax ci leneen muy mhm. lii di mbas mi jamono ji gis nañu e, ni mu e, lawee ci mim réew ñu bëggoon a xam ci wàllum e, yàqu-yàqu yéen mairie bu achelem lan ngeen ci mën a xayma ci yàqute waaw yàqute ñu de toute façon mbas mi bi mu commencé maire dafa mettre en place benn communal mhm. donc pour la gestion de la pandémie mhm. Euh, bi ñu ko defee aussi au niveau de chaque quartier autour du délégué et des conseils municipaux ñu def benn comité euh, donc de quartier mhm. pour la gestion du Covid noonu noonu lañ ko doxalee donc lu jógee loo xam ne état bi lu jógee ñi ko war a am ci au niveau des quartiers jox nañ leen ko à travers le sous-préfet mhm. ñun aussi ñu def suñu recensement kenn ku ci nekk li nga war a am à travers le comité ñu wàcce ko ci quartier bi parce que quartier bi moo doon identifier ñi ko war a c'est le quartier qui qui a ñu jox quartier bi seen ticket ñu ñëw ci maire bi ñu jox leen donc seen euh, li ñu leen li ñu leen war a jox. lool muy ndimbalu askan wi li jëm ci marché yi. waaw nan ngeen doxalee ngir nag ngeen mën a aar askan wi ci mbas mi. ci mbas mi marché yi ñun liñ def parce que dama la ci wax gis nga ñun bi kii bi amee la première des choses. Mhm. toutes les voies pénétrantes des HLM. était doté de lave mais ñoom ñëpp ko voies yi nga xam ne ci la nit ñi di jaar pour dugg ci biir quartier HLM yëpp muy voie pénétrante nañ fa def benn agent def fa lave mais kuy dugg biir HLM nga raxas sa loxo. Mhm. ñu defal la gel ñu dem noonu lañ noonu lañ doon def. Mhm. beneen bi mooy marché bi ñun marché HLM dañ koy nettoyer chaque guddi on a une équipe de nuit de nettoiement. guddi gu guddi gu nekk. guddi gu nekk dañ koy buñ ko defaree en en collaboration avec l'UCG parce que ñoom ñooy gérer ñoom ñooy gérer euh, l'évacuation mm-hmm. camion bi day taxaw ñu bale marché bi ci guddi ki yëpp ba mu set def ko ci camion bi mm-hmm. UCG bu xëy la matin yóbbu ko ñu noonu la ñuy liggéeyee léegi nag moo tax bu ñu waxee euh, marché HLM mm-hmm. lenn rek xëy na moo ci doy waaye muy euh, commerçant bu ci nekk da nga waroon am sa kii xam nga dangay ngay nettoyer guddi ñoom ñu xëy di dajje di dajje ay sachet yëpp sànni ko ci mbedd mi hmm. xëy na foofu foofu la éducation war a mën a gën a tax taxawaat Okay. parce que mënoo ñëw guddi ñu bale ba mu set yow fi ñuy bale yow yaa ko yow yaa fay jaay nga ñëw daaj gi say pake daaj gi say kii ak at li nga xam ne mooy euh, weñ yiñ ci liñ ciy lëmas ak yëpp mm-hmm. nga jël sànni ko ci mbedd mi mm-hmm. mais ku ci amoon ku ci amoon sa sa sa poubelle à côté de toi nga def ko ci bu guddee ñi ñi ñiy bale ñëw tuur ko bale dem dina gën a set mais marché HLM moom du mbas meeg ñàkk mbas mi moom dañ koy bale d'accord ah. ñu gis ne yéen communes yi ñu ci bëri ci euh, lii nga xam ne mooy recette euh, taxe yi ci ngeen di jëlee euh, seen budget maanaam seen xaalis mm-hmm. ci ngeen di bëri li ngeen di rouler tey mbas mi am lu mu gàllankoor ci activité économique nan ngeen di liggéeyee jamono ji liggéey <laughs> waaw ñun de HLM yëg nañ ko wax dëgg yàlla parce que gis nga le budget de la collectivité mhm. ay pàcc la dafa am pàcc boo xam ne maire bi ci boppam mooy xool ni kii dafa war a fay parce que tey ji sama marché bu ma ko amee ma luye ko ay commerçant xam naa ñaata laa am mhm. donc man maa wax yow danga ma war a fay yow tànga may war a parce que conseil municipal dafa délibéré mhm. man am na yàlla def na am naa registre sama wet sama registre mooy encaissé dem verser trésor mhm. donc loolu lu maitriser la chaque donc côté boobu maîtriser naa dama koy def mais beneen pàcc bi mhm. mooy bi nga xam ne état nag moo ko muy les impôts locaux état ci boppam à travers la direction des impôts moom muy fixer assiette bi mhm. moom moo xam ki war a fay ki war a fay ñaata lay fay kan la kañ la fay kañ la fayu muy les rôles d'impôt bu ko génnee jox ko trésor trésor daal di koy recouvrer bu ko recouvrer nag ñu daal di jël nag jox ko mairie bi mhm. mais kañ la ak naka la kooku moom ñun xamuñu ci mënuñu wax muy euh, euh, le foncier bâti mhm. muy le minimum fiscal muy euh, donc li ñuy wax impôt yu bari la mhm. mais yooyu yëpp ñun géré wuñ ko dañuy defar un reversement foofu nag moo sooxe ren jii Covid bi parce que xam nga état dafa dafa dafa dafa dafa bloqué woon les impôts. Mhm. donc ñun yëg nañ ko bu baax a baax la collectivité locale. kon daal mbas mi yàqal na leen lu bëri bëri. yàqal nañu y' a plein de de projets yoo xam ne kenn mënu ko def sax pour nga am projet même si l'esprit de projet est là ba nga ba ba nga élaborer ko pour nga exécuter ko pour nga am dara. su ñu koy exécuter nit ki taxaw doo ko fay. Mhm. parce que xaalis amul donc ñun dañu teniroon compte am na ay. projet yoo xam ne mot jotuñu la mise parce que xaalis am fi woon li fi amoon c'était tout juste de fonctionner ñu ëpp loolu la woon sànq wax nga ko ngeen doon wax ci ndimbal yi nga xam ne seen commune bi jot na koo def askan wi ci jamonoy mbas mi tey ñu déggoon coow ca ndoxteel ba ci mbir mi ay conseil municipal municipales euh, donc euh, conseils municipaux ñu génn wax ne dafa ñoom anam gi ñuy gérer xaalis bi maanaam fonds force Covid bi euh, dalul seen xel coow loolu fu mu mujj. waaw parce que xam nga bi mbas bi ñëwee dafa fekk ñu voté budget yi ba pare léegi nag il fallait ñu modifier budget yi ci lañ def benn autorisation spéciale. Mhm. bi ñu defee autorisation spéciale ci lañ jënd les produits jënd les denrées donc tout ce qui pour jàppale askan bi. Mhm. mais li may wax nga la gestion de la collectivité et les collégiens te yàlla dafa créer ay espace xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawal askan bi. Mhm. war nañu mën a toog foofu ci di ci wax. Mhm. parce que boo waxee ci bi xëy na da ngay porter presse mais bu fekkee ne nga bëgg mu régler da wax fa ko war a waxee. ak say nawle. ñu ko. donc maire dafa am euh, il est acteur principal. mais il y a un municipal. boo xam ne bala ñuy dem conseil municipal bureau municipal boobu moom la maire di jox les documents mu mu mu mu mu xayma ko. Mhm. bu cee def observation wala lu mu ci yokk wala lu mu ci wàññi soog koy yóbbu conseil municipal. Mhm. bu ñu demee conseil municipal li ñuy wax conseil bi dafa am ay commission commission yooyu ñoom ñooy jël conseil bi da koy daal di jël jox commission bi ne ko xoox euh, saytul ma ko. Mhm. bu ko commission bi saytulee ba pare nag ñu ñëw plénière bu ñëwee plénière nag foofu nag mooy débat bi. d'accord. d'accord kooku donc am na nañ foo xam ne bu fekkee ni nekkul war na ñu mën a toog foofu mën ko fa waxee bu ko defee bu fekkee ni ñu war a defaraat ñu defaraat ko bu fekkee ni ñoom dañu xamul maire mën a expliquer ne leen ñi demewul noonu nii la demee nii la demee parce que euh, euh, collectivité locale moom benn nit di ko def mënta ne. Mm-hmm. loi bi permettre ko c'est une gestion collégiale il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de la collectivité. Madame Faye Jacqueline Badiane